merci. <clears throat> sister lim lim lim nañ problème yi nga xam ne ñun moom la ñu moom la moom la ñu détecté. sans sans compter li nga xam ne moom la nit ñi di casse tout le temps accueil bi ak yooyu yu bëree bëree bëri doyen wax na léegi ba làmb li nga xam ne moo di santé publique santé privée ah, privé bi mu ngi yàq public bi loolu yëpp wax na ko sa domaine la ñu dugg mbaalo. waaw loolu moom sawar naa trop di ci wax. Mhm. am yu bëri yoo xam ne d'accord naa ko doyen bi mais am na fu nga xam ne xëy na peut-être euh, dafa ñàkk daf ñoo ñàkk a moo tax mu wax sur la question des propositions je pense que wax ngeen ni à chaque fois ñu génne communiqué. même boo gisee sur Abbas Ndao ànd gi sa moo def communiqué bi. te pourtant on aurait pu pu nous taire mënoon nañu noppi. mais dañu ni lii kenn mënu ko noppi. parce que un couple bu nga xamee ni ñëw na am doomam foofu doom dafa war a génn ñu ngeen de ko lijjanti ko. vraiment mais c'est pas que ñu koy trouver fi ñu ko fekk noonu. ñu naqarlu ko. Mm-hmm. bu baax a baax euh, di jox suñu njaal famille bi notre compassion mm-hmm. bon di jàll aussi événement yi nga énuméré yëpp parce que bu ci nekk au cas par cas benn cas xëy na ñaari cas ñoo ci niroo mais ñoom ñëpp bokkuñu dinañ ci wax lu ñu suñu luñ ci xalaat et aussi euh, euh, manifester aussi comme ni ñu waxee notre désarroi par rapport à la gouvernance du système. Mm-hmm. parce que wax nañu sax soo gisee suñu communiqué on a même parlé des états généraux. de Abbas Daw. Mm -hmm. On ah même dit que Abbas Daw est laissé à lui-même parce que nous n'en sommes pas à ce seul incident. mais aussi dafa xaw ma propre aussi aux autres aux hôpitaux sur ces questions de gouvernance mm. te yàlla def na ñun ñoo doon xeex ba en dix 98 euh, on a voté la loi portant réforme hospitalière mais parce que effectivement dafa mel ni l'histoire moom mooy bégay comme ni ko yenn chroniqueurs yi di wax mm-hmm. euh, que quand l'hôpital bu fekkee hôpital bi ki fay ñëw gisu ci boppam euh, état bi gisu ci boppam travailleur gisu ci boppam war nañ seetaat mbir mi. Mm-hmm. loolu moo waral la loi hospitalière ñu ne lan moo gën mooy au lieu que mu nekk hôpital Providence nekk une logique simplement rationnelle comme sax nañu jël importe les outils de l'entreprise les outils du management de l'entreprise mm-hmm. indi ko à l'hôpital moo tax mm-hmm. bu njëkk ba hôpital y avait le médecin le directeur. ensuite le médecin chef de l'hôpital ensuite l'intendant donc ligne de crédit lañ leen di jox ñu koy consommer ba fin fin d'année xamuñu ndax liñ jënd baax na wala liñ def baaxul c'était ça cet hôpital là mais bu ñu changé hôpital bi par une réforme ñu ne c'est une entreprise mais une entreprise qui ne génère pas de bénéfice mais qui doit équilibrer ses comptes loolu mooy rupture bi ñu indi mais est-ce que l'État a accompagné cet hôpital là bu bees yi accompagné ko comme ni mu waree loolu mooy la grande problématique Mmh. Parce que d'abord, l'hôpital a une mission de service public de santé, parce que droit à la santé dafa nekk un droit consacré les même donc nit ki ci boppam war na mun a dem ci santé fajo ñun mhm. nag ñu doon revendiquer loolu que les hôpitaux étaient des mouroirs ak yu mel noonu ba on se rappelle bien euh, le journal Takussan amee benn article bu ñu defoon y avait Mamadou Oumar et les autres que Dantec était un mourard loolu moo indi loolu mais bu fekkee nii nee nañu réforme bi lii moo tax mu jóg mu am un conseil d'administration pour la gouvernance locale mu am un directeur léegi intendant bi nekkatul intendant rek di dajale xaalis di yóbbu trésor bu ko soxlaa du ko am on a amené le trésor à l'hôpital mooy l'ACP moo tax hôpital boobu am double tutelle une tutelle technique ministère de la santé une tutelle financière ministère des finances mais bu dee loolu la je pense que les questions de dotation budgétaire ak yu mel noonu war nañu mën a trouver le juste milieu mais bu fekkee hôpitaux yooyu bu ñu leen di réformer ba léegi budget yi ñu amoon depuis ñooñu comme ni ma koy waxee souvent njaajaan njaay bu dee budget yooyu moo fi nekk ba léegi mais les gens donc noorom pas les moyens qu'il faut comme ni ñu ko waxee quelque part pour agir la mission. Hmm. donc les les wax non c'est entre autres problèmes parce que déjà da nga war a faj booy faj danga war a am jum jumtuwaay jumtuwaay aussi comme mais bu fekkee yow nee nañ la am nga mission de service public. dañ lay jox joxatuñ la une ligne de crédit mais dañ lay jox ay subventions mais les subventions c'est pour la mission des services publics la subvention dafa nekk au prorata des charges mënoo joxe subvention bu nekkul situation d'exploitation boo xam ne dafa jëkk mënuloo ba ba ñu toj Dantec nga ko jox un milliard cinq cent annuellement laa wax annuellement un milliard cinq cent dont trois cent millions d'électricité te Dantec fin d'année bu defee son bilan mu retrouver avec six milliards ou sept mais c'est parce que boo jëlee 6 milliards 7 milliards nga génn ci 1 milliard 500 tout le reste vient de la poche des usagers pour ne pas dire des malades pour ne pas dire de la famille loolu le compte national de la santé révélé woon d'aller les ménages à eux seuls les ménages mettre pour cent comme dépense de santé te mën nañ ko considérer comme des dépenses catastrophiques dépense boo waroon jëm changer benn fauteuil wala changer frigo nga koy jënd ordonnance wala di koy ça c'est ça les dépenses catastrophiques mm. c'est les et l'État qui se partage les les les les vingt huit qui qui restent les quarante deux qui donc loolu mu nekk un problème moo tax la question du financement de la santé dans une perspective holistique moo nekk aussi enga contre combat bu ñuy engagé pour que yow nga faju te doo gis génne loxo ci poche est-ce que xam nga lu da ngay faju mais doo génne doo doo dugal loxo ci poche. ça que les Français ont plus ou moins réussi avec euh, je pense avec seen système boobu euh, boo ñëwee on s'arrange à ce que li état bi indi keneen indi keneen indi ñu dajale ko agrégé ko maintenant yooyu li nga fay mais de manière détournée doo doo fay loxo ci poche mais on a fait un mécanisme bu tax nga fay par exemple par un système d'assurance ou beneen système boo xam ni donc loolu mooy la problématique maintenant li ci des les questions de comportement. ça mais mais Mballo baal ma rek mais li nga wax noonu ci réforme yi. moo ci dellu seen un peu. système yi ñuy def pour nga mën a faju doo fay wala doo def li nga wax léegi doo dugal loxo ci poche ak yooyu bëri na fi ñu fi def kii ci la bokk je pense euh, nu mu tudd euh, kii maladie universelle. maladie foofu laa jëm ne. l' état c' est. foofu laa jëm c' est dama nekk dama dans une chronologie. c' est à dire réforme c' est à dire pour que l' hôpital nga xam ni mooy la référence nga xam ni foofu la malade bi war a mujjee donc foofu dafa am loo xam ne dafa soxe maintenant ñun on a dit même ñu avancé mi dañu ne ñun une santé plus préventive que curative mm -hmm. et une santé de base en lie et place d'une santé élitiste comme ni mu waxee nii euh, la médecine privée qui est en train de manger disons euh, euh, la médecine publique ou bien le service public loolu mooy les grandes questions maintenant il y a une volonté quelque part mais ñi ñu koy dénk est-ce qu'il y ça c'est une grande question. Mm-hmm. ñi ñu dénk aussi ñan la ñuy dénk aussi les directions la un autre problème parce que a parlé de l'administration mais ñooñu aussi ñu ne ci suuf est-ce que fees nañu seen place est-ce qu'on sanctionne est-ce qu'on les évalue c'est des problèmes parce que même Abbas Ndao quand une euh, radio de la place m'a m'a demandé euh, lan nga ci xalaat loolu man ko au niveau de l'organigramme de l'hôpital ku ci nekk am na niveau de responsabilité bu nga xam ne ku nekk war nañ la mën a interroger évaluer munoo rek linge nga ñëw jël rek saaga linge nga sotti rek mécaniquement comme ça te donc donc yooyu aussi parce que les tâches aussi on doit les contrôler on doit les vérifier à tous les niveaux parce que c'est la vie humaine qui est là en jeu donc loolu moo waral aussi euh, ailleurs aussi quand on parle de de l'hôpital par exemple de de Kaolack y avait ce, bébé là mais bu fekkee de manière routinière ñi fa war a nekk jël nañu seen ordonnancier wala jël seen i bulletin teg ko fa def seen marché daal ni ku fi am kii rek signal man maa ko signé yow nan ngay mën a en tant que médecin ngay jël sa kay nga signé cachet teg ko foofu daal ni lu xew def leen nga dem defi leneen mais avec cette routine là. Mm-hmm. mais cet enfant là wutal nañ ko certificat de décès pour mu dem pour ñu inhumer ko fekk te bon mu ngi woon fële ci ci ci ci morgue bi. donc yooyu aussi su fekkee ni ku ci nekk nekkoon na ci place am di assumer sa responsabilité mi ngi noonu. mais le privé là mais tous ceux qui sont état xam na leen. mais pourquoi depuis l'indépendance ba léegi euh, ñu nekk euh, le pays bu nga xam ne ni avec la Tunisie yooyu on est parti avec les mêmes agrégats la Tunisie se retrouve avec plus de 17 000 médecins toutes spécialités confondues mais ñun on même pas 5 000 médecins dans notre administration dans le public mais Adama sa ça pose problème mais pourquoi on n'a pas fait grand chose pour que ñooñu toog maintenant la question du salaire aussi nekkoon na question principale que heureusement aussi, ça qu'on le dise aussi haut et fort, que, que, le président Macky Sall a réglé. Aujourd'hui, les niveaux de salaire ont atteint des niveaux jamais égalés. Donc, c'est des augmentations inédites et c'est des augmentations substantielles. Rien au bout d'un moment, les gens ne trouveraient pas à partir ou bien à aller dire comme ils auraient beaucoup plus de conscience parce que les questions alimentaires aussi, c'est des questions aussi qui sont euh, des questions aussi fondamentales.